déedéet moom la commencé na Thank you. day day génn di day jëpp samedi loolu suñu tool yi. ah fàtte ma ko waaye kàttan bi néew na ñu. waaw lépp li ma ci gëj a nii. waaw foofu moom ma nga foofu suuf si dafa gis. bokk ak suuf si dafa joor suuf si bàll. waaw Thank you. jox ko gën a bëree rek gën a gën a saturé rek donc ko ñoo ngi wax moom nag sëñ Moustapha yi ñoo ngi déggante léeg-léeg li Moussa ay doj yu xaw a tàng nag moom tànn lañ ñu gën a mën waaye mu ngi mu ngi jàppale bu baax baax man comme man dañ maa dañ maa ràññee ci sànni xeer léeg nga am ku lay sànni baax nga xam waaye ñu ngi koy ñu bu baax a baax a baax waaw waaye mi ngi ciy jàpp bu baax macha ci discrétion bu mag sëñ waaye mi ngi ciy jàpp wax dëgg yàlla depuis premier jour bi mu ñu andi hmm. ko fii ñu koy koy matal su manqué léeg-léeg ci ci xarsat la xam nga te moom patron la. suuf suuf la patron la donc moom day koy koy leen nekk waaye daal ñu ngi ciy jàpp waaw ñu ko ciy gërëm bu baax moom ak ñi mu àndal ñëpp. yaa ngi si jàpp li si fan lañ doon. mën nañ ko waaw xeer yi mën nañ ko gérer. <laughs> mën nañ ko loolu daal mooy tànk si léegi bi si bi ñëwee fanaan. ñu dalal ñu benn gërëm. Thank you. mais yow gerte gi nga def ko waat nga présente ko rek après ci ñu ko waat maa ngi la waxoon di la Macky Sall dàq la pétrole moo dàq. lim soir nga am faram fàcce ne jamono nga waxaat loolu ñu pétrole moo dàq. la tam seen dàq bu baax jërëjëf mooy sama def gannaaw yàlla xalu xalu fi ne. ci ngoon mu def émission dina ah, jamono wax ne tëral moo ko def waaw wax na صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة